rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati wajal waadi watanala sunu jotaayu cinquante cinq wa nettali na moom sëriñ bi ci tukki bi ne anna fataatan naka benn xale bu jigéen min banaati ndar yoo xam ne mi ngi bokk ci doomi ndar ra'at gisoon na ahla badrin waa ahlu badar manaaman ci ay nelaw fii tilkal ayaami ci fan yooyee Euh, dafa bind wa fii tilkal ayaami fii tilkal ayaami ci yooyee fan mu gis waa ahlu batar ci ay nelaw daxaloo ñu dugg alxariyata dëkk ba wa tafiqu ñu tàmbali nag yadbaxuuna di rendi ahlaha waa dëkk bi xataa isaa dana ba ñu jegee ba nga xamee ne jege na waahidun kenn minhum ci malaaka yi ahlu badrin yi xaala mu wax ko aaxaru keneen ci mbokk malaakaam ne tilka kookee nga jëm kat muslimatun ab jullit bu jigéen la de fan sarafa mu daal di wëlbati ko anha bàyyi ko sëñ Tuubaa nee na ci tukki bi am na genn gone jigéen goo xam ne ci doomi ndar la dafa nettali ne dafa géntoon gis waa ahlu badr ñu dugg ci dëkk bañ nekkoon dëkk tubaab yooyee il boobee di ren di nit ñi kuñ ñëw rek rey la am malaaka mu ko jegee ba koy waaja a rey nag ka na ko déet déet kooko kat ab jullit la bu ko rey ne mu won ko ginnaaw xaala wax na asayxu sëriñ bi radiallahu anhu ne tilkal bint gone gu jigéen googe saalihatun ku baax la kooku day ñeenaa ko lool sëñ bee ko seedal loolu wa kaana ta nekkoon na tuxsinu di rafetal ilay jëm ci man bi ma ci loo xam ne tayassara jàppandi na loxoo ñeel ko wa taqulu lii mu may wax naan ma kullama aataytuka saa yu ma la joxee addiya foofa foofa lool de min amali yadi mi ngi bàyyi ko ci sama liggéeyu loxo addiya yu laa lay jox de laysa fiihi di di nekk ci addiye ji samanu xamrin njëgu sàngara wala samanu tabaqin du caaginu njëgu poon wa yuxarafu baatub tabq dañ koy xam bi nat ni wa duxaani ñaar yëpp dañ koy wax wa innama taqulu saalika naka dafa may leeral loolu daf may wax loolu li annal muamalata ngir naka jëflante ga xunaaka foofe bihima nekk na ci ñaar yooyu wa taala mu moom dana xam moom gën a jigéen gi bi àndi ci naka man la astaamiluha duma duma leen jëfandikoo ñoom ñaar wala bi sama thamanihima du caaginu seeni njëg nee na ko ne ku jigéen googee ku baax la daana rafetal jëm ci man kem kàrtanam ah, daana ma yónnee ay addiye waaye heure bu yónnee addiye ji kat day wax ne lii nag lu ma liggéey la ba mu lew ma di la ko jox njëgu sàngara nekku ci njëgu póon nekku ci lu tax mu may leeral lool mooy dëkk ba loolu moo fa amoon maanaam ñoom ñëpp ci loolu lañ day yënguru póon ak sàngara ak lu bon lool rek comme daa bari nag mu mu bañ xëy na ma defe ne alal ji ma bañ koo jëfandikoo ngir ne boo demee ca bokk moo tax mu dima leeral loola ndax moom xam na ne man du ma jëfandikoo ñaar yooyu du ma jëfandikoo seeni njëg fa xultu laha ma wax ko yow man benn bis Sëñ Tuubaa nee na benn bis ma ne ko maa turi diina analoo jublu analoo bëgg bi haasal ihsaani ci gii rafetal waaye li ngay rafetal nii di ma jox di ma jox ay addiya di rafetal jëme ci man loo ci jublu ak loo ci bëgg xaalat mu wax moom ndaw si ne am amma fi dunya bi bu dee ci adduna de fa bu bëgg naa durriyatan ay doom ak i sët wa amma fi laaxirati bu dee ci àllaaxira fal jannatu ajana laa bëgg qultu ma ne ko wallaahu yàlla de qadirun aji man la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon loolu day yomb na yàlla benn bis ma ne ko li ngay rafetal jëm ci man loo ci jublu mu ne bu dee ci adduna ak njaboot laa bëgg bu dee ci ëllëg yowmal xiyam nag ajana laa bëgg ma ne ko loolu day yomb na yàlla loolu day yomb na yàlla lool yàlla mën na ko falam yàlla ba saxut bi isnillaahi ci coobare yàlla an xamalat ba ndaw sa ëmb na wama kaanat te moo ne nekkutoon di taxmilu di bokk ci ñi ëmb wama kaanat nekkutoon taxmilu di ëmb waxiina ba nga xamee ne mat na muddatu xamliha diirub ëmbam ba wadaat ci la wasin wa maatat tamu faatu moom ndaw si bil wadci ca wasin ba ca accouchement ba fa mi wasi na rek fa la faatu wa sallaytu alayha ma jullee ko ci wama waqaxa tëbbiwut wala mustata bi bashari sama gis alayha ci kaw ndaw si xattu mukk illaa xiina waqaftu lu dul ci jamono joojee ma taxawee usalli alayha di ko jullee <laughs> loolu ak sàmm la wa innama kaanat naka naka nekk daana nekk moom ndaw si tuamilu nii di jëflanteeg man bil muraasala al muraasala mooy yónnee ndaw loolu la daa jëflanteeg man waxiila waxees na ne innaha naka moom ndaw si bintu daba sëy doomi daba sëy la was wasmuha turam wa nag aminatu mooy amina sëñ tubaa nee na benn bis bi ma ko waxee ne ko loo jublu ci addee ji nga may jox ak rafetal gi mu ne ma bu dee ci àdduna ay sët ak doom maanaam njaboot bu dee ci àllaaxira àjjana ma ne ko loolu yomb na yàlla moo ne loole bi mu amee nee na saxuñ lu dul ab diir bu gàtt rek ndaw si daal di ëmb te moo ne day daa meloon ne ku jaasir daa meloon ne ku mënta am doom dara lu nu roog ëmb daw ko gis kon day mel ne xëy na <laughs> ñaanu sëriñ bi la ci coobare suñu borom mu daal ëmb ba nga xamee ne ëmb bi mat na mu daal di am doom wasin waaye nag moom dafa faatu wasin na am na doom li mu bëggoon ci àdduna mu am na ko waaye dafa faatu te it xam nga ne kuy wasin ci ak am doom gis nga liñ ci wax dara jee shahid mooy day du ko àjjana kon ñaar yëpp daan na koy am incha allah sëñ bi nee na man mii maa ko jullee mësuma koo gis nag coow li li muy bari bari mu may yox addee di rafetal di ñu yónnante mësuñoo ñoo tegante bët mësuma siggi xool ko ndax moom daawu fa ñëw dara yónnee rek keroog bi ñu tegee néew bi ma di ko jullee booba la sama bët doo ko tegu ci moom te booba ñu ngi ko sàng mu nekk am néew xoola googu sàmm xoola googu sàmm maa ngi koy doog a gis booba a ah, ndaw sa day nee nañ ma doomi ku ñuy wax daba sëy la tayit mi ngi tudd aminatu wakaanat nekkoon na moom gone gu jigéen googi yal na ko yàlla dolli ngërëm taxta rajulin di nekk ci ron waay yuqaalu lahu koo xam ne ñi ngi naan ko yelli sëy yelli sëy ku siiw la de maanaam borom këram moo tuddoon yelli sëy borom këram moo tuddoon yelli sëy waxu moom yelli sëy mii ne min arkaanil xaakimi mi ngi bokk ci kilifa administrateur bi maanaam mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ay kilifa lañu yoo xam ne dañuy liggéey ak tubaab bi waxu moom yëli say mi ay den ba tey de minal minal muhibbiina mi ngi bokk ci way way sopp yi al muhsiniina ña rafetal lii jëm ci man moom mii de ku ma soppoon la tey daana rafetal jëm ci man lool lëxoo amoon na maxal xaakimi mook tubaab bi yow mun bis ay wamu bu aji tar bi sababi ci sama ci sama sabab nee na yëli say mii de moom it amoon na bis bu metti lool diggantam ak tubaab bi bis bu tàng jër te moo ne man mii dong day maa ko waraloon maa ko waraloon maanaam daal tubaab bi daf maa daf maa tooñoon tooñ bu metti mu jóg mu jóg di ma défendre ñoom ñaar ñuy daggasante <laughs> bis bu tàng jër te gudd ma dëgg yàlla ta défendre ma dong la ca jublu woon yàlla na ko yàlla fay te moo ko ndaw soosu eh, doomi ndaba sëy jooju tuddoon Amina ñoom yëpp yàlla defal leen tawfiq sëriñ bi mooy nettali sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana ci mbirum yelli sëy nee na yelli sëy moomu ku ma soppoon la waaye nag am na benn bis boo xam ne daal amoon na bis bu tàng jër digganteem ak tubaab bi mu ne wa zalika loolu li ko waral mooy an nii naka man sëñ tubaa day yow min jëmmi benn bis nasabutu samp naa arbaa arbaata iidaan arbaata iidaanin yenti bant fii musallaaya ci sama barabu julleekaay bi baabi bayti ci sama buntu kër wala sama buntu néeg buntu fañ ma dalaloon li asrifa ngir ma wëlbatee bihaa ci bant yooyu almaarina way romb ya an mawdii solaati ci barabub sama jullikaay bi barab ba may jullee fa basura mu daal di gis nag bihaa ci bant yooyu alxaakimu attekat ba tubaab bi wa qaama mu daal di jóg min fawrihi ca saasa wa ataani mu dikkal ma mu ñëw fi man wa naqada mu dindi al masjida jàkka ja wa qalaa mu buddi al iidaana bant ya warama biha mu sànni leen waxaala mu wax ne laa salaata huna julli amut fii wala islaam islaamit du fi am turiidu da nga bëgg yow sëñ bi an tufsida alayna al junda nga yàqal no sunu soldaar yi an tufsida ba nga yàq alayna ci ñun al junda soldaar yi fasakatu noppi wa xalumtu ma lewet alayhi ci sëñ Tuubaa ne yëlli sëy moom ma la doon wax ne moo jur ndaw su baax soosey nga xam ne moo tuddoon Aminatu te doon ma jox addiija te faatu ba muy am doom te mu waxoon ne ku ñu wax daba sëy moo nekkoon waajuram wu jigéen yëlli sëy mii nekkoon boroom këram nee na yëlli sëy bis boobe mu amoon doon xulóog tubaab bi xulóo bu metti li ko sabab mooy dama wutoon barabu julleekaay sëñ Tuubaa fu mu dem dafay defar jàkk ndax jàkk ji nag wax dëgg dana xaw a tumuranke yàlla fay na ko jàkkaam yii ñu gis ba ca mujj mooy Masaalikul naan dëgg yàlla nga xam ne yàlla mën a fay nee na nit ñi dañ fa daan romb te xam nga kanamu fu ñuy jullee kenn du fa romb ma daal di wut samay bant samp ko fa ngir ku ñëwati bëgg a romb xam ne fii du jaarukaay mu dëpp loolu laa ci jublu woon te it wax dëgg yàlla fi ñu ma dalaloon laa ko def defu defuma ko ci diggu yoon wi tooñu ma nit ñi waaye tubaab bi gis lool rek. daa di jóg ci saa sa ñëw sempi bant yi sànni ci àll ba tasaare jàkka ji ma defaroon mu daan fii moom julli amu fi lislaam amu fi lii la tax a jóg mooy danga bëgg a yàq yàq sunu soldaar yi xalaat bi nekk ci yow nga bëgg koo def ci ñoom waaye loolu moom du fi amee sëñ Tuubaa nee na man dey ba ma waxee damaa noppi rek ne ci yàlla daal di lewet rek waxuma ko dara waaye falamma alima ba nga xamee ne xam na bi ci loolu yi mu def yelli sëy xaama moom it jug na min fawrihi ca saasa wal xaakimu te attekat bi kat lamma yazul dañagut di nekk foofee maanaam delloogut ma nga fa taxaw wa wasala naa mu agsi ci ñun moom yelli sëy mughdaban nekk ku ñu meral waxaala mu wax moom yelli lil xaakimi ñeel tubaab bi ne ko lima naqatta lu tax nga dindi mas masjidahoo jàkkaam ji waxoo ta jàkka ji kat bi baa bi baytihi wax dëgg ci buntu këram la ko def kon am na ci sañ-sañ lam yu dayiq ala tariqin ci wenn yoon wala ala du caaginu kenn yàqalut kenn fa wax alxaakimu attakat bi ne ko kadalika afxalu noonu mu ma neexe de koy defe maa dindi jàkkam bam neex ma laa masjida huna jàkk amul fii fa xaala lahoo yelli say na ko fa xaala lahoo yelli yelli say na ko laa budda par force nag an aruddahoo ma delloo ko mënta ñàkk jàkk ji dinaa ko defaraat ala xaalihi ca na mu meloon fa xaala wax al alxaakimu àttekat bi ne ko laa tarudduhu mukk doo ko delloo fa xaala mu dox nag annaasu nit ñi fa xaala digale annaasu nit ñi baynahuma seen diggante an yatadaaraba ngir bañ ñu dóorante day mel da ngay nattale an laa <laughs> ngir bañ ñu doorante ngir bañ ñu xeex fa yaa ñu des ñoom ñaar yéeleeg tubaab bi min al asri li ko dalee takkusaan ilal xuróob ba ca soog jant ba yata xaasamaani di xuloo rek kullu dhalika lii lépp ñuy xulookat wa ana man ak aktubu maa ngi bind ci li say mi ne wax dëgg yàlla xuma ana ay sëtam waaye defal ne leen way woo xam ne wax dëgg nu mas fay liggéey bu rëy bi mu liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na ko ko yàlla fay ñu ngi sàkku ko déglu leeral gi ñu koy leeral ba agsi ci daal nag ñu kon ñaanalal ngërëmal yàlla ak njéggalam ak tawfiixam te rafet nañ ci njort nee na bi nga xamee ne Élysée yëg na ne tubaab bi kat sama jàkka ji ma defaroon yàq na ko sempi bant ya daa di jug fa saasa ñëw mer lool fekk na tubaab bi demagut ma ko taxaw foofu rek di ma yekk lu mel ne xamee di wax ay waxam ba mu ñëwee ne waaw tubaab bi jàkkaam ji lu tax nga dindi ko moo jàkka ji moom yàqalul kenn tooñul kenn ci biir kër gi ñu ko defal fa la nekk ci buntu këram la ko def xatalut mbedd mi tey di yàqalut kenn aw yoonam lu tax nga di ko dindi attaqué na ko mel na daal dana ko dal mooma neex kadalika afaalu waaw maa ko def de maa ko maa dindi jàkkam bam neex ma yéli seen ne ko ah, loolu nag amoo ca sañ-sañ jàkka ji dinaa ko defaraat nam meloon tubaab na ko mukk doo ko defaraat ñoom ñaar ñuy tegante den di xuloo di xuloo ba budutoo nag nit ñee dox seen diggante danañu dóorante danañu xeex waaye la tàmbalee ca tëkkusaan ba ca soog jant ba ñoom ñaar ñi ngi xuloo yélisee mi ngi jëlal defaa sëñ ba di ko xulool yàlla na ko yàlla fay tuyaaba ju ëpp loolu benn seconde mu nekk yàlla na ko yàlla dottil ay ngërëm ak i leer ak yërmaane ba defal ko ko teraanga ak àdduna ak àllaaxira ci ay ci ak njabootam gi fi des fier nañ ci moom moom yéeli say moom nee na ñuy xuloo Sëñ Tuubaa nee na loolu lépp nag man maa ngi sëgg dellu sama mbind moo amul temps amul jot wa fi haadihi al ci qissa bii nag ci nettali bi katabtu laa binde qasidatan ak qasida te moo di rabbana axrijna min haadihi al qaryati ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira rabbana yow sunu borom axrijna yàlla nag ñu génne min haadihi alqaryati ci dëkk bii nga xam ne ahluha waa dëkk bi de dégg nga alzalimi ay tooñkat lañu wala nga ne alzalimi bay aji tooñ ahluha aw ñoñam ay ju naqare i'rab la jànkari naxu yi <laughs> ismu faa'ilu fii xam nga day jëf min hadihi alqaryati ci bii dëkk alzalimi bay aji tooñ ahluha ñoñam dëkk bi nga xam ne ñi fi dëkk ay dañuy tooñ waj'al lanaa yàlla nag ñu defal min la dunka lu bàyyi fa yow lu nekk fa yow waliyan dégg nga ci ak méngoo nga méngoo suñuy mbir waj'al lanaa yàlla ñu defal nasiran ndimbal min la dunka wala aji dimbali min la dunka lu bàyyi koo fa yow suñ borom dëkk bii day dëkk ñi fi nekk dañuy tooñ lool kon nag nit buñ koy tooñ soxla na ku mu wéeru kon yàlla na nga nekk sama wali ma wéeru ci yow waaye yàlla na ma yàlla na nga nekk sama nasir nekk di ki aji dimbali sama nasiran aji dimbali sama saa borom nee na allahu waliyu alladina amanu yàlla nee na man day maa wéeru waayu maay ki nga xam ne maay dimbali maay aar maa féetewoo ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla waaye walladina kafaru ñoom de awliyaahum taagut ñoom awliyaa lañ am amuñu waliyu yàlla moom kenn la gis nga mu ne allahu waliyu kenn la jullit ñëpp benn delluwaay lañ am muy yàlla waaye ku gëmul yàlla lu ne ngay dellu ci bant ci xërëm ak mu def awliyaa ñoom de ay taaxut ay caaxaan rek ak i xusaabilaat ñoom mooy seen delluwaay loolu la yoon jullit ñëpp benn delluwaay lañ am yàlla waaye ku dul jullit ñi dul ay jullit nag ku nekk da ngaa wut sa pàccu bopp ak la nga gëm ñu bàyyi ci xel. nee na xasida gi loolu laa ko tënkee woon te xasida gi siiw na mooy raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba seetlu leen ñaari rabba yi bokkuñu lu ñuy firi de loolu bokk na ci yéemeeg sëñ Tuubaa radiallahu anhu raditu gërëm naa man sëñ Tuubaa anil mawla ca kilifa ga di suñu boroom taala kawe na taala jommante naag la ko tubaab bi la ko la ko yéefari di wax ci ay baadu ñaaw naa ko da am doom yooyu yëpp yàlla sori na ko allasi yàlla mi nga xam ne rabbaa yar na fu aadi sama xol loolu lay tekki foofu rabbaa tërbiye na fu aadi sama xol moo defar sama xol wa naa nii te doy luloo ma jox na ma lu ma doy wa akrim kawtee fi tedd nga bihi ci moom rabban mbir mu muy buur rabbaa gu mujj gi Eh, buñ ko maasoon dëgg rabban lay doon kon buur lay firi gee rek rabbaa ilaa an balaxa jëm ci ba mu jot xawluhu wax jëmi wax ne la hoogtub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba uktub yàlla na nga bind yàlla na nga dogal yow yàlla lahoo ñel yonant bi salaatan dolli teral ma salaamin ànd ak dolli góolu bi alihi ak waa këram ña moom yonant bi wa ashaabihi ak sahaabaam ya wajxal te yàlla na nga def bii ca daraja yonante bi masjid yi sama jàkka ji raxban muy aji yaatu bi mu agsee foofu nag xiila lahoo ñu ne ko ustujiba laka nangul nañ la sak ñaan sawfa taraahu te danga ko gis waxad ra'aynaahu sëñ Mouhamadou Hamoud Amin nee na dëgg dëgg la de gis nan ko de woo te jàkka jooju mu doon ñaan masjidu Jurbel mooy jàkkay njaareem wa Tuuba ak jàkkay Tuuba wa hiya moom nag xasiida gi tawilatun aji gudd la xasinatun aji rafet la lahaa ñeel na ko taasiirun jeexit kasi kabirun bu rëy fi dafci ci jañ wa jalbi ak ñoddi bi fadlillaahi loolu nag mi nga bàyyi ko ci ngënal yàlla de jëru nga di ko weddi ne fu ko sëñ bi mën a jëlee sëñ bi moom amut ci màngi sinu yàlla rek lay jële taala kawe na wa sadaqata dëggal na an naazimu aji way ji kon nag fa fal yattaqillaa na ragal yàlla mustaamiluha aji jëfandikoo xasida gi ci dafoog jalbu wala yar xab tana xemmem na ñaan fii xayriha ci aw yiwam ah, sëñ Tuubaa nee na xasida ga ma doon taarif booba moo di rabbana axrijna moo di raditu anil moom laa ko tënk ndaa jël aaye alxuraan jooju di ci tënk nga xam ne mu ne man dey gërëm naa yàlla mi nga xam ne moo ma yaral sama xol te moo ma jox lu ma doy sëkk moom day buur bu tedd la boo xam ne buur bu yéeme la ba ma agsee ci baytu ne yàlla maa ngi def maa ngi ñaan nga defal yonent bi salaatu salaam mook waa këram ak saabaam te nga defal ma jàkka joo xam ne jàkka ju yaatu la foofa de ñu ne ma ah, sa ñaan gii de jàkka jii ngay ñaan de nangul nañ la ko de ñaari jàkka benn bi ca njaareem lay doon benn bi ca Touba moo tax sëñ Mouhamadou Amin euh, ne loolu day lu wér la ndax jàkka ji moom bët tegee na ci amul benn werante bu njaareem bi moom àgg na julli ci bu Touba bi moo ko tàmbali woon. moo ko tàmbali woon bi mu koy doo ko tàmbali ci la delloo ca boroomam mu ne xasiida gi nag xasiida gu yéeme la xasiida gu gudd la goo xam ne nga ñaan ci mu nangu lu yomb la lool loo ci ñaan gis ko moo xam loo bëgg di ko wut ñu di ko tuddee jalbu mooy ñoddi walla looy ragal di ko daw ñu di ko tuddee def mooy loo bëgg a dàq dafa am taasiir loolu lépp nag ci ngëneelul yàlla la mu ne kon nag ni ko sëñ bi ñaane woon noonu la amee yow mi jël xasida gi di ko jëfandikoo nee kon nang ci ragal yàlla ba bul ci ñaan lu lees wërta ñaan bul ci ñaan lees wërta ñaan nang ci ragal yàlla waaye loo ci bëgg ci wiiw nag moom am na ci mooy xasida raditu anil mawla goog yi sëriñ muhammadul amin nee wakaana te nekkoon na min qadaa illaahi ci dogalu bi yàlla an bopp wafada dikk na alayhi ci moom zairan mbir mu muy aji siyaare kan moo dikkoon yelli sëy kon mooy faayil ci mintil kan naaxiyati bàyyi koo ca googale la fii njaareem ca njaareem ti tinaa il masjidi ginnaaw tabaxuk jàkka ja te mooy jumaay njaareem lay wax sëñ Mouhamadou Amine nee na sëñ yelli mu baax moom yi ñu doon wax te doon xeexal sëñ Tuubaa doon ko xulool ndeysaan nee na ginnaaw bi xew-xew bi jàllee ba yàlla dogal sëriñ bi jóge ci géej gi ba sëriñ bi ñëw njaareem ba ñu tabax jumaay njaareem ji ba mu noppi sëñ Yelli Sëy mii ñëw na siyaar si sëñ Tuubaa bàyyi koo ca dëkk yu sori yooyee mu jógee ba mu ñëwee fa qaala lii sëriñ bi ne ma fa qaala mu wax lii ñeel ma asayxu sëriñ bi ana man wa saahibun ak menn mbokk lii ñeel ma wa saahibu dakub àndaale lii ñeel ma ne izhaba dem leen yéen ñaar maahu ngeen ànd ak sëñ yéeli yesuuru mu wisite almasjida jàkka ja fa zahab naa ñu dem wa taafa bihi mu wër jàkka ji yaminan ci ndeyjoor wa shimalan ak ci càmmooñ sharqan ci penk wa garban ak sowu waxran ci biti wa batnan ak ci biir wa zahaba mu yóbbu bihi ci moom ala ajabu kiimaan kulla madhabin wépp yoon sëñ tubaa bi sëñ yéeli ñëwee siyaare si sëriñ bi ci njaareem sëñ mu Mouhamadou Amine mii bind téere bi nee na man la sëriñ bi woo ak kenn ci sama mbokki donga yi ne ma yéen ñaar ñii àndale nag sëñ yéeli mii mu dem siyaare ji mu wisite sama jumaa ji mooy jumaa njaareem ji nee bañ demee ñu àndak moom mu daal di wër ko ci ndeyjoor ak ci càmmooñ penkook sow dugg ci biir xool ko dugg génn ci bitti xool ko daal ci yéemu lool yéemu gi jéggi dayoo falamma rajaana ba nga xamee ne dellusi nañu xaalala lahu sëriñ xaalala lahu mu wax ko aseyxu sëriñ bi sëriñ bi ne ko kayfa haasa noo gisee jumaa ji wama ak sama jàkka ja nga xam ne kunta nekkoon nga ra'ayta di ko gis ayyuhal muqaatilu e yow mii nga xam ne yaa nekkoon aje xeex ja xan nii walif ma yaa ma doon xeexal biñ dellu see sëñ Tuubaa ne ko ah, nga jumaa jee mu ne ko waaw mu ne ko waaw nu mel ak jumaa ja nga xam ne wala boog sama njàkka sa <laughs> jàkka kenn du ko tasxiir waaye sama bant yooyee ma sampoon te tubaab ba ñëw sempi ko nga doon ma xeexal xeex bu metti boobee ak xuloo ba noo gisee jàkka joojee ak jàkka jii nga visité tey noo ko gisee ah, qaala mu daal ne subhaanallah tudd naa sellug yàlla subhaanallah laa munaasabata amul genn xeetu nuróonte genn xeetu askonante baynahuma ji nekk seen diggante ñoom ñaar sëriñ yël ne ko sëriñ yël daal tudd yàlla ne ko ah wax dëgg yàlla nuróowuñ dara dara dara dara dara juma ji ak juma joojee moom bokkuñu dara maanaam bii daal moo gën a yéeme fuuf xam nga loola ca dëgg-dëgg du woon jàkka waaye sëriñ bi moo bëgg rek fu mu def fu mu nekk rek dana fa def lu mel ne jàkka moo tax rek mu samp ay bantam def ko ab julleekaayam ndax foofu la dooleem toll foofu la dooleem toll moo tax sa yéeli nag wax dëgg yàlla joojee nag ak jii moom nuroowuñ dara dara dara dara dara xaala wax asayxu sëriñ bi ne ko haasa lii dey huwa moom maanaa xawli mooy maanaam wax jama waxoon ne nafa li xayrillahu fi ma yumba ma saa qalbiya wa alal janba sëñ tubaa ne ko sama bayir woowu ba ma koy wax lii moo taxoon may wax mooy nafa dàq na allahu yàlla li xayri jëm ci keneen ku bokkut ak man fii maa yomba ci maa yomba dàqal na ma maa la nga xam ne saa a naqari woon na xalbiya sama xol wa ala te mu kaweel al janba wàll ga sëriñ bi moo ko fiiri nee na ko maa saa a xalbiya la naqari woon sama xol ma kay wax ci bayit bi huwa moom naqadu dalika al masjidi mooy dindi googee tubaab ba dindi woon joojee jàkka wa alal janba côté bi li ma yàlla yëkkatil mu ne huwa moom irtifaau manaratin yëkkati ko ay sooroor te haasihi moo di yile maanaam sëñ tubaa ne ko la ma naqari sama xol mooy tubaab ba ma defar sama jàkka joojee mu ñëw tasaare ko dindi ko sànni ko ca àll ba waaye la ma yàlla fayee nag tama tama ko doon wax naan wa alal janba nee na mooy suñ borom subhanahu wa taala sama juma ji mu ma faye nga xam ne sooroor yi dafa gudd lool macha allah xikaayatun lii de am nettali la tarifatun bu aji yéeme waaye daanaka mu xissa bee benn la fii dimnaha nettali boo xam ne nekk na ci biiram karaamatun karaama xaala wax na ay sayxu sëriñ bi ne lamma xala ba mu sempee alxaakimu attekatu tubaab bi alidaana bant ya alidaan mooy jamu uud uudan mooy firi wala boog uudun mooy firi benn bant boo ko jamoo mu nekk iidaan iidaan ba tubaab ba sempee sama bant yooyee axasa jël na baadu shaamitiina baadu shaamitiina lenn ci way ndokk ya ñenn ci gaay ya nga xam dañ ma daa ñaawal jël na min ci bant ya uudan ab bant waaw kay mufrad maa ngi noonu sax wa zahaba bihi mu yóbbu ko ila mirxaadihi jëm ca toiletam ba mooy wanagam ba wala salle de bain ba euh, sëñ Mouhamadou Amine ku yéeme la gis nga baat yi muy jëfandikoo daanaka arab la yoo xam ne fosxaa la maanaam fi ne boo demee ci xeetu aéroport yeeg yu mel noonu baat bii nga fay fekk baat bi doonte dees na wax alxalaa ak yu mel noonu waaye baat bii daal baat bu rafet la euh, da nga gis ñu bind ca maraxib mooy ay toilette kon mu yóbbu ko ca toilette am ba ay li ma jublu ci baatu mirxaad ndax xëy na nit mën na ko bañ a mooy bayti ixtisaalihi moo di néeg ba muy dugg di sangu mooy salle de bain rek wanakam wa najaasatihi ak sobeem fa nasabahu mu samp ko foofu moom waa ji falam yalbas moom daal saxut yëggut an daxala ba mu dugg daalikal bayta boobee néeg waxtaaja te mu aaja woo ilaa maa in jëm cim ndox fa axasa mu jël aalatan ab jumtuwaay fiihaa boo xam ne nekk na ca biiram maa un ndox shadiidul xaraarati bu aje tar ci tàngoor wala mu yaalam xamu ko kat xamul ne dafa tàng wala mu yu jarribhu te nattuwu ko te jërëbuwu ko maanaam lëmbul ba xam li ci nekk tàng naam sedd na mooy tajriba bi yadihi ci loxoom balli am kay mooy sabbahu sotti na ko rek ala udwihi ci kaw sàkkaraam sax muy ci kaw cërëm ba ci kaw awraam ba fa nafara mu daal di foñ tëb nafarata volimi euh, kim tëbuk baa kim tëbuk baaba almurawaxi bari bu ñu tiital wa saaxa mu yuuxu mil a famihi lu fees gimiñam nga yuuxu foofa yuuxu mën a mën a yam yaa seyxu daan yow sëriñ bi adrik nii ay dabaatal ma ci yërmande dabaatal ma ci yërmande faqad halaktu alkunaakat warama mu daal di sànni eh, bi tosti ca ndab la tost ndab lay doon loo xam ne dañ ci daa def ndox ndab lu mag ndab lu mag baidan fu sori wa jaani mu dikkal ma wa yaduhu ta loxom ba kat fii sirwaalihi mi ngi ci tubéem ji mu téye fa xultu ma ne ko fa hël ndax am na menn pexe illaa sabrun lu dul muñ wa xawlu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak tamit nga jéem a wax rek na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy yàlla daal ca moom la ñu bàyyi koo woon lu yàgg-yàgg it ca moom lañuy ñuy delluwaat rek rawatina bu ñu amee musiba sëñ Mouhamadul Amin nee na nettali bi nettali bu yéeme la nee na bi nga xamee ne tubaab bi sempi na sama jàkka jooji bant ya ma ca sampoon mu sànni ko ca àll ba daa am kenn ci gaa yi nga xam ne dañ ma daan ndokk waaw lu ma dal ci lu metti rek ñoom loolu wax dëgg da leen da leen di bégloo in tusibka musibatun in fekkee ne lu baax dal na leen yàlla ñi gëmul yàlla day loolu da leen di metti waaye bu dee musiba nag wax dëgg yàlla loolu moom da leen di neex bu ngeen amee lu baax yéefar yi dañuy mer ca loola waaye bu ngeen amee lu bon nag ñoom dañ cey kontaan moo tax mu ne bi nga xamee ne tubaab bi sempi ne sama bant yi sànni ko kenn ci ñi nga xam ne dañ ma daa ñaawal daa jël ca bant yooyee dem defar ci wanagam moom samp ko ca wanagam ba xam nga loolu wax dëgg moo di ak ñaawal mënu ko weesu ndax bant boo xam ne jàkka jàkka yàlla lañ ci doon defar nga jël ko di ko dugal ci barabub sobe waaye Sëñ Tuubaa nee na moom daal saxut lu yàgg rek mu aajo wa dem ca wanag wa ba mu fajee aajo ba noppi xëy na muy tuur ndox wala muy dem wanag mu daal di jël bool ba nga xam ne ca lañ daa def ndox ngir raxas awraam ba mu sottee ndeke ndox ma daa tàng jër jër ba maara day taali waaye neen dafa tëb tëb goo xam ne daal dafa mel ne baa baa ku ne xam ne buy daw ni mi mel day jéego jéego yu gudd rawatina baa boo xam ne dañ koo tiital mel ne baa baa goo xam ne da koo bett rek tiital ko muy ni muy dawee mu daal di yuuxu ba fa baatam mën a yem daani ay sëriñ bi yërëm ma yërëm ma maanaam xam na ne lim def li ko yàlla teg ñaawal gi may ñaawal sëriñ bi ak bantam boobu mu jël loolu la ko yàlla fayee nee na waay waay alku naa waay daal di sànni bool bi defoon ndox mi daal di daw ñëw ci man nee na nga xam ne sax tubéy ji da koo téye bi muy daw ñëw sologu tubéy mi ngi jël tubéy ji téye ko noonu ah sëriñ bi nee na ma ne ko ah wax dëgg day muñ dong de moo fi sës ak dellu ci yàlla wax na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndeysaan rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي ولنا